ak këram ak ñaari dofam ñàkku dafa dof na melu yàlla la waaye mëndumbe dafa réew dof <laughs> Sibacoor. Sibacoor mooy fan fii Sibacoor Sibacoor gii ci kaw la yoon laa fa rek. yow ñaata yoon nga leb paas fii ne Sibacoor nga jëm te demoo ndekete. ah maanaam mais yow si ndekete yow mbaa mu sa faa dem. kii nu muy wax nii waxi dof. mun na damaa yaakaar damay cosmal mais est-ce que looy cosmal cosmal kan ngay cosmal. looy cosmal est-ce que ma wax ma damay damay nelaw de yéema. Fafa kii yow la ay Fap bett nga ma de. lu xew. non non mais da ngay wax xamu leen. non da hmm. oh. sa tubay ba xam yow da ngaa. yow bett nga ma de. eh waxal li ngay wax mu leer waaye yow lan laa la bette. gis nga. boo boo defee benn affaire du dof dof man fii laa taxaw dégg di la déglu lépp yëg naa ko mu sama nopp bi femme bi wax na mu lépp yow papa xale bi jigéen moo la ameel bol ah ameel la bol bol ba kii nit a koy fay boppam la koy fayee ah yow ndekk guddi gi li nga yuuxu yëpp boobu yow yaa ngi ca kal yaa ngi ca dël ya tëdd rek ah di bolongu di yuuxu xanaa xanaa matt yee lay matt nga yuux remplacé koog yuuxu yee. day dugg dugg waaw. da ngay dugg yow mosoo ci sax ne ne gëj a gisee teg a gisee sax mosoo ko caa def. waaw ah, na baax na baax na baax na. dëkk bi naan xale bi fi mu may bu oui baax na mosoo caa teg la. waaye doy na doy na doy na. gis nga nag léegi. waaw doy na li man a man a wax mooy. waaw boo. surtout rek surtout ma xam naa li nga bëgg a wax. fo foo xoolee ba booy kaay mu mën mënu ba yëg. nu mu ko yëgee yaa ko yëg de man ak yow ak yàlla. ay waxu mënu ba yëgee. mun ne ma nga xamante ni bu la ji bu la jubee sax lim la bëgg a wax da nga koy séen ci biir bi affaire bi affaire di feeñ. ñànku suturaal ma man sa baay la mais da nga war a suturaal sa bopp sonn bu la tax dugg ci yéen lii la olof naan mala naan bu la taxee naan bu la mënee ubbee nga lus. waaw waaw baax na baax na. li ma ne kenn du yedd sa baay loolu baaxul kenn du yedd sa baay. machine bi ku wóoful. sa xel lan la la jox. xam nga buñ la xësee ci jàkka. alxar yi jib na boo demee sëq ak beneen góor ci mbiru sëy njaaloo la ci didoo laa demoon didoo Baye Karim waaw borom yëmbal ci moom laa demoon ndax moom tubaarikàlla macha allah day faj buumu gàccee julli gi daa ñëw ba pare bi loo xalaat def nañ ko la sa xel jox xanaa xamul dangaa ne ci buum didoo hmm. nekk ci buum du doxaan moo la gën a xam ne awma jëkkër yow doo jëkkër chaque jour ma la ko contrat nga danga naan ma xanaa xamul ne dangaa nekk ci contrat bul na jëkkër baal jëkkër. yow yaa ngi joxe sa bopp nii. non foofu moom eggaguma fa ak moom. ko taalibe Baye Karim Karim la du def yooyu. Ah, waaw waaw garaaw garaaw yàlla baax na. mën naa xam ne dama dama dama dama xam ni boo nekkee nit te muy jigéen te feet yi di ñëw wax dëgg yàlla euh, bëgg na solo bëgg na bëgg na defal boppam bëgg na kii ma amoon sama benn sama kër yi ma am ci tere yi fii. ma jaayoon ci benn sama benn mbokk bàyyi ngooñ mii daal laa ko jaayoon waaw ma yëkkati woon nag kii un la ma ne woon naa la ko jox pour nga nga préparé ci tabaski ji nga li ngay def waaye nag. waaw waaw préparé ci tabaski ji. million nga nekk ci biir préparé ko ci. un million fii. waaw préparé man maa la ko jox. est xam nga ni man sama àdduna yow rek laa bëggoon mais waruma woon nëbb sa bopp. danga maa waroon xamal nag am na ay kër yoo war a mën a jaay. Hmm. am lii nag moom wax fa dëgg yàlla muñ naa ko fi. Hmm, hmm. muñ naa ko fi te xaar naa ko fi. ginnaaw ba nag maa toogoon fii décidé. ne la góob ma julli fekk ma fi. yaakaar naa ne màggal Tuubaa sax fii la may fekk. man yow laa bëgg yow laa am te jëkkër sang la ah, ah. jooy mag baaxul ci xale maa la ko ñaan. damaa kontaan maa la ko ñaan may ma ko. damaa kontaan waaye maa la ko ñaan bu jooy. yaakaaruma ko woon ko man kay xanaa may góorgóorlu rek xanaa laa jox beneen eh, waaw kay ndax ndax ma mën a dem si ba loolu nga war a def nag xam nga lan moo tax. Ah. sama yaay. Ah. julli gi hmm. war naa kaa jëndal jasuneer hmm. war naa kaa jëndal borode. non gaw mu xaj fii ah, lii ah. pour man sax mënu pour man ma mu mat waaw waaw d'accord ndax moom faaw ma dem ci maam góor kay dama bëgg li jënt benn euh, jox la rek dem si ba soor de tool lii de wax dëgg yàlla boo ko defee doo fa dem ndànk ah, di ko romb yaa ngi tàmba waaye maa la ko ñaan ngir yàlla nag <laughs> papa yi eh, eh papa yi tamit bàyyi li eh. nga def arrêté papa yi di jot ci heure de ah ay de ba Rasulullah jaral na maa dem Vietnam nga jot di nga ci dem di nga ci jot de. mbaa yëg nga ni di nga na mën naa ko de. dem ba Tamba. walaay la la waaw papa waaye bul jooy bul jooy. noppi naa ah da na daal fii un million moo yàlla yàlla jublu kontaan naa ci yow lool. ma wax la benn affaire. Ah. lu mosoon naqari ci kër gi dina neex mbaa yëngal maag yow fii dina mel ni tamarin de moo ciy daqaar te tey ci guddi du ma la may dara te loo ma may ma yóbbu ay waay waaw yow papa yow tamit bàyyi li ngay def papa yee eh. waaw dama koo nam dama koo nam buñ ma ko waxee sama xel mi da ciy dem demal demal demal baax na garaawul waaye da ngay <laughs> arrêté sa jooy yi. jooy ma jooy yi naqar de jooy yi bànneex laay bàyyi ma ma jooy. non mais bul jooy man bu ma gis say rongoñ. bàyyi ma ma en jooy samay jooy nii jabal jabal baax na digga jot ci un yi de. tey de laay commencé ak yow. jëm ci ba keroog may jot un yi dootoo ko defati. maa ngi yow tey fii. dootuma ko def gunge ma. booy bi jaay yàmbaa ci koñ bi fan laa ko mën a gisee tey ki ki ku toxul jàkkaarloo moom doo doo doo taxaw de il faut mu tox nday yàmbaa yu baax buuka yu baax yoo xam ni mën a mën mën mën mën mën a jëmmal sama bopp te loolu dog ñànku rek ku mën a jënd ñànku ñànku ñànku yaa ngi tan xam de ñànku eh, Eh, eh, bu diwee foofu ma diw ko ci seen e eh, awa nag li ngay def tegoo ko fenn. moo yàq li ngay def ñàkk kersa la. wàcce wàcce li ngay def ñàkk kersa la nag. li ngay def nag ñàkk kepp sa la ma li ngay wax eh eh Farba Farba eh, eh, bu ma yàq sama liggéey waaye tamit eh, Farba amul fula waaye tamit waaye dama def waaye bu ma yàq nag tamit nag dama waaye tamit waaye dama def dama def waaye dama dama waaye dama dama waaye dama waaye dama waaye dama waaye dama ñàkk ci sa tànta la parce que dama wóor yaa sa tànta la parce que yaa sama tànta la waaye dama waaye bu ma yàqal waaye waaye yow kay xamoo ne moom tànta la Afa, ah! waaw bu baax waaw bu baax awa kooku ween yi la de. ah diwal fii. ah diwal fii. awa awa fii ween yi la de fii ween yi la de. moo la tax a def bërëb noonu di daw. fii ween yi lan la kii xale la de. te xel mi màgg naa màgg naa màgg naa. te xel mi wérul bu bu amee fu mu àgg day attaqué de. non non non non non am naa ma tamit. am naa ma tamit yow sa tante la. waaw awal li. xeet awal li. Eh, damay liggéey damay liggéey ma yàq sama liggéey damay liggéey de. Adam xam naa la awa kii xale la sama doom la. léegi yow lan la lan mooy sa problème sama doom la. waaw léegi lan la ah, am na loo xam ne boo ko mënee rafetul. woo ma ma diwal la wala noonu la la. waaw yow waaw sa xel da cee nekk moo tax. li métier la métier la dama ko jàng ba ma ko ko diw yaram diw yaram rek laa man dama lekk dama xooloo. dama ko yow bi nii jàng métier jàngoo métier dama la. waaw dama la. kaay diwal la papa kaay toog rek kaay toog diwal ko. waaw. waaw di bu baax si doon si kay si doon kay eh waaw di lan la maa kontaan rek soo xoolee seen li ñuy wax dëgg la nag soo xoolee fii ko merci dégg nga waaw sama at neex na ma ma waaw papa am na lu ñu jot ci man de xam nga la maa ngi maa ngi fedd leneen loo xam ne lu sedd lu waxoon ne moom ah oh papa utal ma ay beeka oh sama taal mu demee kaamee loxo kaamee loxo mu demee mu demee. baax na baax na. wala yi sotti sotti. yaa ngi boo nga jóg ci moom hmm. nga bañ. waaw baax man ni nga mel rek a tax mënuma ci yow ya dara dama laa dama laa dama laa ñeewantal da di sama taaw di sama xarit may lay ñeewantal. waaw tant foo jëm loolu. ngay ñibbi. fan ngay ah, loolu mënta ne. Ah, waaw loolu mënta ne awa awa awa xanaa doo awa xanaa boo ñibbi démb maag a fanaan nga dem waxante koog man na doo xëy nii ni ni nii rek la ngay dem. yow yow war ngaa mën a xam ne contrat bi jeex na. ah waaw waaw waaw bi jeex na. waaye waaye. waaye contrat dañ koy yokk tuuti. yokk tuuti. waaw dafa dal ma prolongement de contrat. aw ma temps aw pour wax. eh toogal eh. bañ tabaski ba pare. eh non eh. doo bañ tabaski ba pare. ñaan ko bàyyil yi eh. les moo bagage bàyyil. eh eh yi. bagage jàmbur la eh, joxal ki bagage am day dem. awa awa waxal ak man man xam naa ne contrat bi jeex na léegi nangu naa ko waaye awa. signalaat ma beneen contrat yokkal ma tuuti. beneen contrat bu tabaski ji jeex man du la téye. xanaa nekkul da ngay jëli caterpillar. damay jaay damay jaay jaay ma contrat jaay ma beneen contrat man loo ma jaay ma jënd. tëjal sal ñaanku dama lay jam socc bi de. man it waxuma ak yow waxuma Cheikh Oumar Gueye daal doom rek la nga yamal place doom eh, dama am lu may lijjanti yow doo doo eh. dimbali ma ngir yàlla rek ah, dimbali ma ngir yàlla rek maa la tinu dimbali ma ngir yàlla ñànku ki laay waxal ñànku yaa ngi may tooñ waxuma ak yow ñànku yaa ngi may tooñ waaw mais man tuddu ma la ah ñànku sama digganteeg yow nag dina am dina am jàppal ma jàpp de waa léegi xam nga lan la ñànku dimbali ma rek dimbali ma rek ñànku yee dimbali ma rek bu nu tabaskee ba noppi bu nu tabaskee mën a jënd man loo ma jaayee ma jënd. Ah, ah, ah. bu tabaskee pare sa baax la ñànku damay déglu amal fulla ci sa bopp la nga daj ci kël gii coono gi nga ci daj ay ñànku gëma sa bopp ñànku xanaa jëluma la xale bu ndaw bu bul ko déglu ah bul déglu nen nga waaw kenn boofu la kenn omelette la kenn may neesu la dara feetul teew loolu tax may toog di jël saag bi ñu ah. dugal toogal muñ dugal jërëjëf toogal muñ jërëjëf toogal nga muñ jërëjëf ni nga ma sagale yàlla la yàlla sagale noonu maa ngi ñëw léegi ñu waxaale maa ngi ñëw ñu waxaale lu mu jaar ma jënd toogal muñ sëyal ba dee yow nag fii bu fi jógee da ngaa war a seey seytaan yi kiñ la la dikkal ba pare bëggoole koog seytaane taxaw yi la fi indi. naa ni ma taxawoo. tabaski ren gi daa nar a neex bu soobee na bi <laughs> sa neex ak këram ak ñaari dofam ñàkku dafa dof na melu yàlla la waaye dafa réew yéen seen jëkkër seen borom kër sax pour yéen ay nelawam yéen a ko moom. jënd ci ñaari xar ñu teg comme ni nga ko daan defee chaque année tabaskee benn bi benn bi ñu jaay ko def ci suñuy saf-safal. yaa tegg lii. waaw. bu ma jëkkati nga ni mbote. loolu mooy. Ah, sa papa delloo ma si nekk di sonal sama bopp sax kii ba yeboo nga ray saraxa ko wala nga maye ko xool noo def moom. man liggéey laa xam guddi jot ma tëdd nelaw jàpp sama ñaam bëgg nga ay kébatu nag ba ay wax. dama bëggoon a kii. yow yow yow lay kii tëral. nga papa dugal dugal dugal dugal papa yow nelawaan bu bon nga am ni nga nelawee baaxul dara ah. <laughs> tabaski ci fajar laa ko jël incha allah. <laughs> naa la ko indil ba ca ga. waaw baax na naa la ko ca kër ga jërëjëf. jërëjëf sëñ bi ma mbokk ya. ah da ngaa amum xar pour bëgg xar mi tëbu. waaw dama bëggoon xar mi ah, loolu kay yow la. yow sama papa tëbukat bu mag baa ngi nii xanaa dégloo ko Père la grand tëbu day xar aka ay si loolu yéen dangaa bëgg ay affaire su mee ko tarop lu ne loolu baaxul dama laa bëgg rek xam ne ne amul à distance amul danger moo tax amul danger xaar ma commencé ma daal di wala sama karaw gis am naa karaw xoolal xar mi lu mu toll ah tons xar bi maa ngi koy xontu li may jox yow maa ngi koy def mais li xar bi di def day tiire rek xar bi day tëb rek tëb mooy lan xamoo luy tëb ana gawsu gawsu gawsu kole neel kaw si mu indi jaasi gaaw xar maa ngay dee ma ngay dee nee ko ma daw si daw si gaaw si gaaw si la ilaha illallah ndigaay gi damay gënal ma xar yi baax nga ma indi xar mu korona kii ba mu ñëwee ci kër gi di daanu di wàccoog di di di réeku laa la xar mi dafa korona nga ne ma déedéet ba indi fi cinq cent mille teg sa loxo nga may def ni di ma jéem a ruube lii yëpp yaa ko def waaye nag auto solution euh, da nga koy yóbbu lakkul wala da nga koy ceeb bii dafa noir et blanc déet déet c'est que léeg-léeg day dugg ci waañ wi déet nga ne ko bëy ngay tabaskee kan ci sama yumpaañ lu ma ciy wax ak moom lu ma ciy wax ak moom moom la lay wéyee di baal di jël décision sama ginnaaw per bëy bi laay bañ a dégg ci kër gi bu wax wax du bëy waxu bëy laa bëgg nga teg xar mii des ci kër gi moom laay tabaske bëy yi fu mu xam nañ jëm neel waaw neel waaw ah, yar réew waay ko maa ngi ndax sama bopp rajaa noppi bu jooy noppi bu jooy kilifa nga kilifa da jooy noppi naa lii lan ah, daal yow per da ngay wër say turandoo ca àll <laughs> am xar ci boppam bu tëboo boo ne ko jàkk rek war nga koo xam man bu ma ko laalul woon sax mën naa xam ne xar mi tëbu na eh, tans yaa ngi imaginer ñu xëy rek bëy yeeg xar yeeg yëpp rek deewandoo loolu noo ko imaginer action bu rafet la de ber gu xar tas na këram ber gu xar tas na këram ber eh, gu xar tas na këram ber gu xar tas na këram seen bët yi xool ana yow. dugal nelaw Diop taxawal ci buntu bi. doo ko fi nelawee la dem na Diop. kër gi ah! balaa paa di ñëw. Mhm. nañu rey xar bi ba pare parce que ca. ban xar nga wax Diop. xar mi ko ko fi ma toj sa waay. eh Diop yow. wii ma jaamite yooyu yëpp day dudd da ngay duddoy wax ji den na yet ngay yaay den na jaamite bàyyi nay def waay yaa may doote yi den na ni yaay den nay waaw tay den nay den nay dama koo dagg de lu tax lu lekk dugg ma ne dana lekk dugg laa wax dafa gën ñu lekk dugg moo leen gën fuuf boo ko joxee ndugg bi ma rey lu leer laa la wax. reyal dégg li ma la wax rek na daal xar mi du lekk ndugg. dinaa ko ko jox xanaa tey nga bëgg a topp doo xar mi. Modou Lo quatorzième victoire Modou Lo am col am col la am col am col la dana ko mbot daan na ma. xar mi li ko desee ci dund. Hmm. fii ak trois mois. Hmm. su bruit duggaatee ci noppam lu bari mën na dee ko. oh balaa moo dee ñu rey ko. xanaa ñu rey la yow. xayam mi daa sa ni sacrifice te yee na ma téema noo ko defee. boobu nga wax eh. Eh. kor joor jenge. arrêté arrêté kaay kaay kaay kaay kor joor jenge moom. léegi baal yi ba waaw noppi leen noppi leen. doy na tan doy na fi ma tir bi delloo sama wax ma des la nga dem daa eh. taa yeen ma paan bi tan waaw xar bi moom bu ñu ko sàngee duñ ko gaaw dugal dañ koy bàyyi si mbedd bi waaw ñu xam ne am nañ xar kon yëpp xam ne ñun nag am nañ xar waaw tey tabaski ren moom day day neex day day neex jàppal eh sama day tamit ah. tey tamit tey nii na ma yéene paan bi yow jógale ko dem ba ma ne ma def ma def la fi kaj tool yi. doyul doyul doyul doyul doyul wax bi na de ndax xay mi. waaw. yow tey yaay sëyam sa yaay. bay ma la bay ma la bay ma. sëñ bi sama yaay ñoo ko def maa tooy fayu bu tooba yaay. tey. tey lu ko mag du ko si na. monsieur ak madame. sëyam e bi nga a ci mbir bi nga xool rek nga wax ah Fallou Diop ñoo Fallou Diop Fallou Diop mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi waaye xam naa bay day xam papa xam nga ran ko dem bay ko xam la rek waaw du fi yett xam du fi yett xar bi du fi yett ah xar bi sa ñaaway bi nga mel ni xar mu yow dama lay rey de ma ne xar mi day lekk xar mi rek kay am droit lekk ci biir kër gi boo leen bëggee la lekk ngeen wuti ko xar mi day lekk. Tabaski ren bi nan dem seeti baar Sénégal.